tabaaraka wa taala julli ci mawlaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ak ci jëmmam di leen wax assalaamu aleykum wa taala wa waaye di leen sant nag ci topp bi nga xamante ne yéen a ngi ñu koy topp ci seen émission bii di tafsirul quraanul karim fii ci télévision 7 TV télé bi ñu nuru ba noppi duñu dajale ci ngoonuk weeru koor gu ne comme ni ñu ko baaxoo ji def at yi ñu weesu yëpp ñuy wax nag alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla mi nga xamante ne moo ñu may daaw ak daaw jéeg ak sax daawaati jéeg ñu toogoon fii doon firi téereb yàlla bi di alquraanul karim waaye yàlla maynu ñu fekkewaat ko ren ji ba toogaat fii ci seen kanam fas yéene fàttalente ak yéen waxu yàlla tabaraka wa taala muy alquraanul karim di sant yàlla nag di wax alhamdulillahi allazi anzala alkitaaba ala abdihi li yakuna lil aalamina naziran ñu ngi sant yàlla ba tey mi nga xamante ne moo wàcc alquran ci jaamam ba muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ngir mu nekk ak waare ci mbooleem mbindaafoon yi waaye ñi ngi santati yàlla ci koor gi nga xamante ni tàbbi na tey nekk bés bu njëkk ci weeru koor mi nga xamante ne dafa màgg màgg màgg di sayyidu suhuur weer yëpp muy seen sang euh, kama anna aljumaa euh, ay yaami comme ni nga xamante ne ajjuma noonu la nekkee sangu bés yëpp euh, muy weer woo xamante ne dafa màgg màgg màgg yàllaa ko màggalal boppam ba seedeel loolu boppam ba bu koy tudd sax faaw euh, daf koy tappal ay garaat soog ko tudd waaye du ko du jékkee-jékkee rek ne ramadaan ah bi mu koy tudd ci alquran dafa wax ne auzu billahi min alsheytaani irrajim chahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum alshahra falyasum wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin oxara yeneen weer yëpp bu la neexee nga jékkee-jékki rek ne shawwaal bu la neexee nga jékkee-jékki rek ne zilqaada wala zilxijja wala muharram wala rajab wala rabiul awal wala rabiu saani wala jumaada al awal wala jamaada saani waaye weeru koor moom kenn amul sañ-sañ nga tëb tëb rek ne Ramadan te jiitaluloo chehru le mois le mois de Ramadan parce que yàlla sax bi mu ko wax ci alxuraan dafa ne chehru Ramadan allazi unzila fi alxuraan mi ngi mel ni rek loolu nee ko mën a misaale mi ngi mel ne yow mu jekkee jekki ba ci càgg rek ne Macky Sall donte noonu la tudd nag waaye nag ci dëgg-dëgg gotti nga euh, euh, daraja ji nga xamante ne moom la ko yàlla may. son excellence le président Macky Sall loolu daraja bu ko yàlla tappal fekk mi ngi nekk ci bopp réew mi boobu daraja mi ngi ci loosam moom moo ko moom boobu cër moo ko moom lu mel noonu la la loolu lay misaale rek ci li yàlla def ci weeru koor weeru koor it mun a waruloo jekkee-jekki rek ne koor parce que yàlla sax bi mu koy tudd dafa ne weeru koor yeneen weer yëpp nag bu la ci neex rek mën ngaa jekkee-jekki rek dal ca te doo te doo jiital te doo jiital benn garaat wala benn màggal ah loolu bu fekkente ne am na dara lu muy wane li muy wan tegtale mooy rek ne yàlla subhaanahu wa taala fonk na weer wi te yëkkati ko yëkkati na ko ci kaw weer yëpp ñu sant yàlla ci fekk gi mu ci fekk ndax yonent bi sallallahu salaam wa def ah, bu weer wi teroo mu ne la xad istahalla aleykum shahrun azim ah weer wu màgg weer wu màgg teru na ci yéen waaw wax nañu ne weer la woo xamante ne wi euh, al amal fihi tudaaf euh, weeru promotion la boo xamante ne boo defee benn yàlla fay la ay junni junni junni junni promotion baa ngoog waaye duaukum fihi mustajab seeni ñaan yàlla subhaanahu wa taala daf ko ci nangu waaye istigfaarukum fihi maqbul seen ñaan yàlla mu jéggal leen seeni bàkkaar yàlla daf koy nangu anfasukum fihi tasbix ba ci seen nokki li ngeen li ngeen di nokki noy nokki yi ah tanafusaat yàlla subhaanahu wa taala daf koy considéré comme kuy sàbbaal ah wax nañu ne nit ku normal koo xamante ne amul asmawul sojul feebarul amul problème mu cardiaque amul problème mu dënd mi ngi wér pëlëg cœur bi mi ngi battre à cent pour cent wax nañu ne dina nokki ci waxtu bu ne alfun wa miataani wa xamsuna tanafusan ah mille deux cent cinquante tanafus maanaam génne dugalaat ngelaw génne ngelaw dugalaat dina ko def ci heure bu ne nit ci nit ku normal nag laa wax ah al insaan al saxiix allazi laa marada fiihi wala nit ku wér ki nga xamante ne amul benn feebar bu nekk ci moom ah, bu yéexal battement de wala mu koy gaawal Euh, amul benn illa kooku waxtu wu nekk dina ci euh, respirer euh, mille deux cent cinquante fois loolu boo ko dajalee ci vingt quatre heures yi dafay nekk salaasuuna alfu tanaffus dafay nekk trente mille respiration allahu akbar allahu akbar ñu jëlale koor gi nga woor ak la la ca yàlla di fay alxuraan ja nga cay jàng ak la ca yàlla di fay sarax ya ngay saraxee ak la la ca yàlla di fay xeeti jaamu yàlla yi nga ciy def yëpp ak ni ko yàlla di ko fule jëla ko fay waaye ndekete yow jullit bu sell bi yow mi nga xamante ne nangu nga woor te yàlla tax nangu nga supporté xiif bi ak mar mi te sellal ko ndekete nokki goo nokki yàlla subhaanahu wa taala daf la ciy bindal tiyaabay ku doon sàbbaal allahu akbar kon weer woowu bu tàbbisee kenn ku ci nekk war nga ndokkeel sa moroom ci weer woowu wax ko ne ndokk le ci weer bi nga xamante ne tàbbi na muy shahru ramadan al muazzam ah fa tabarakallahu di ñaan yàlla rek moom mi nga xamante ne ah moo ñu may ñu toogoon fi daaw ak daaw jéeg ak daawaati jéeg ak at yi weesu yëpp di fàttali téereb yàlla bi moom mi nga xam ne moo ñu may ñu toogaat fi tey ren jii di deux mille vingt quatre fas yéene ak yéen waxu yàlla subhaanahu wa taala muy tafsirul quran ngeen di ci ànd nag ak seen mbokk al imam Mouhamadou Lamine Guèye xaadimul islaam yi mindaanu islaam le serviteur de l'islam man moom nangu naa nekk mindaanu islaam lépp lu lislaam soxla nañ ma ca yebal insha allahu taala danaa ca gar sama bakken danaa ca eh, xar sama tànk tubéy te yàlla rek tax ndax mission boobu rek moo am solo amul mission bu ko ëpp solo ci kaw suuf ñu fas yéene nag jaamoo yàlla eh, firi leen alquran suñu kemtalaayu xam-xam donte alquran nag kenn du ko xam ba mu jeex waaye it nag loola warut a tax nag ñu ne kenn waru koo firi alquran leetar la bu bàyyeekoo ci yàlla subhaanahu wa taala jëm ci jaamam yi lépp loo xamante ne nag euh, constitution la maanaam lu waaye ñu war a doxaleeg suñu biir yàlla def na ko ci ne defale defee leen ko nii ak nii ak nii ci bépp mbir bu mu mënti doon rek yàlla àtte na ko ci ni ñu war jaamoo yàlla ba bu ëllëgee bu noj bu ñu dajee ak moom yàlla gërëm ñu yërëm ñu yàlla wax na ko ci biir alxuraan ji lépp loo xamante ne lu xaraam la lu ñu war a teet la lu ñu war a bàyyi la lu ñu war a moytu la ndax bu ñu ko defee bu ëllëgee bu ñu dajee ak yàlla danañu daje ak meram ak sànjam maara day taali yàlla leeral na ko ci ni ñu war a jëflante ci suñuy biir yàlla wax na ko ci ni ñu war a jëflante ak suñuy njaboot yàlla wax na ko ci ni ñu war a jëflante ak suñuy wayjur yàlla wax na ko ci ni ñu war a jëflante ak suñuy dëkkandoo yàlla wax na ko ci ni ñu war a uti alal yàlla wax na ko ci fi ñu war a dépenser suñu alal yàlla wax na ko ci kon muy lettre boo xamante ne lettre bu riche la boo xam ne képp kuy jullit war nga ko xam te war nga koo topp waa loolu nag ndax jarul nag ñu firi ko nag lettre bi parce que kat ñun duñu ay arab ñun ay ajam lanu ay làkkat lanu te alquran ji arab la ah anzalnaahu bi lisaanin arabiyin mubiinin yàlla nee na maa ko wàcce waaye nag ci làkku arab laa ko wàtte laa ko wàcce waaye nag muy wax ju leer kon ñun ñi nga xamante ne du ñu ay arab te di ay jullit te bëgg jaar fa yàlla bëgg jaar fa bëgg a moytu lam ñu tere waaye faawu ñu firi faawu ñu firi ko loolu mooy li neex yàlla tabaraka wa taala te loolu mooy li war a am waaye ne alquran ji daal dafa màgga màgga màgg bàyyee ko ci buur bu tedd bu rëy boo xamante ne ëpp na ay waxam ñu koy tekki ne yow foofu mooy sa gis-gis ba ne alxuraan ji kon danga nga koy jël rek bu la neexee nag mën nga koo mokkal nag nga xam ne buñ la nee taril nga ne euh, nga commencé baqara farararararar farararararar farar ba ne minal jinnati wannaasi waaye mënu ci firi benn baat ca dëgg-dëgg kenn du wax ne sa njàng ma amul njariñ de am na ah kay am na njariñ waaye njariñ li des na ndax li li nga doon wax yow xamu ci dara loolu njàngum gumba la te nag yàlla bi muy wàcc alquran loolu rek taxul woon naam mokkal ko baax na waaye nag liy waajib li nga xam ne moo gën te moo ko te moo ko tax a wàcc mooy ñu di ko tekki kenn ku ci nekk ca làkk ba nga dégg jullit yàlla yi xam ko waaye ne leetar bi dafa rëy rëy rëy ba dama koy jël rek tege ko nee parce que ci yàlla la bàyyee ko waxi yàlla daal ëpp naa tekki boo ko defee yow moomu yaa wàcc yoon wa yàlla subhaanahu wa taala rëdd te mooy ah jii kat ah, yàlla daf ko wàcc wàcce pour mu nekk ak waare ñeel mbindaafoon ni fa tabaarakallah ah, daaw nag ñi ngi taxawoon ci euh, jeexitalu suuratul anaami yaakaar naa ñi may topp daaw euh, yëg nañu loolu bu fekkee am na ci ku ko takk ñi ngi jeexa ñi ngi yamoon ca euh, tafsir bi daaw ci catal suuratul anaami kon tey fii tey ñi ngi war a tàmbalee rek ci Eh, bopp saaru suuratul aaraaf yi suuratul aaraaf nag eh, aaya ya nekk na eh, ñaari téeméer ak juróom-benn ñaari téeméeri aaya la ak juróom-benn waaye saar wa nag ma nga wàccoon makka makki ya la makka la ko yàlla subhaanahu wa taala wàccee woon li tax yàlla subhaanahu wa taala tuddee ko suuratul aaraafi moo di al aaraaf bërëb la boo xamante ne mi ngi ci diggante àjjana ak sawara <clears throat> du àjjana du safara du àjjana yeggul ca xéewal ya waaye du safara yeggul ca mbugal ma mi ngi ci diggante bi ñi ci ngiñ cangañ ah? waaye yàlla dina la nettali ci biir saar yi ñi nga xamante ne ñooy nekk foofa ndeysaan lan moo leen fa yóbbu xanaa euh, yàlla dafa peese parce que xam nga yàlla dafa wax ci alxuraan ne fa amma man saxulat mawazinuhu fa huwa fi ichatin radiya wa amma man xaffat mawazinuhu fa ummuhu haawiya yàlla nee na dinaa balancer seen jëf yi koo xamante Eh, mandargam jëfam ju baax misaanul xasanaatam moo gën a moo gën moo gën a diis nee na kooku day dana dem aljanna waaye ki nga xamante ne nag ay bàkkaaram nag bi ñu peesee moo gën a diis aw yoom kooku day moom sawara la jëm waaw léegi nag ki nga xamante ne nag tawaasun moo am nag ci mbiram équi eh, affaire dafa équilibré wu bàkkaar yi gënta eh, bari tiyaaba ji gënta bari ñooñu ñooy dem aaraaf loolu nag bërëb boobu la yàlla di nettali ci alxuraanul karim ci saar wi loolu moo tax mu faf tudde saar wi suuratul aaraafi kon nag tey ngeen xam ne saar woowu nga xam ne ci ñi nekk ci diggante àjjana ak sawara di ci ñi cangañi ñooñu la yàlla di nettali seen mbir ci saar wi dafa mel ne euh, sama technicien euh, Cheikh Ahmad Bamba Traoré mi ngi may signalé ne li ñu mayoon ci waxtu jeex na waaye nag lu jiw wa jeexul jógu fa yàlla na yàlla may nu bés ëllëg ak jàmm rek ci waxtu yi ñu dellu si ak yéen rek tàmbalee fi nga xamante ne fi la ñu taxaw insha allahu taala ñi ngi leen di wax nag wa kullu amin wa antum bi xayrin at mu ñëw rek yàlla na leen fekk ci jàmm yàlla nañu dugg nañu ci koor gi ak bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu ko génn ak alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla na yàlla nangul jullit ñëpp salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu